yëg na mbir mi ndax jot nañu ay plainte yu bëri ay ñaxtu ce matin rek dégg naa am na fukk ak juróom sénégalais yu woote envoyé lettre ca CNRA man maa ngi euh, Maroc di liggéey ak sama nattangoo fii ci Maroc waaye loolu kenn du ko nangu benn sénégalais du ko nangu loolu moom euh, amul dem ma ñëw euh, benn xalif général ci xalif général yi nekk ci xalif généraux yi nekk Sénégal duñu nangu benn sénégalais jóg dal ci kawam ndax li ñuy wax euh, cohésion sociale dafa am solo lool ñun mooy suñu cœur de métier du ñu nangu donc kenn di di di di jéem a ŋàññi ak nu mu mën a demee xalif général bu nekk Sénégal loolu kenn ko nangu donc euh, jot naa Bougane léegi wax naa moom téléphone mu nga bakkal dafa nekk tournée politique waaye nee na ma nanguwul loolu Iran wax du nangu li Iran di def te du ko nangu du ko solee te dina ko woo léegi léegi ba lay yàgg wax ak moom ci boppam sax dina Bakel wax ne moom daal àndul ci loolu euh, Iran du def alors euh, ñun ñu di seet documents yi foofa ci ca biir CNRA ci biir Sénégal ba xam li mu wax yëpp fan la ko waxee ak nu mu ko waxee waaye lii leer ba leer mooy du ñu nangu euh, kenn du nangu di di di may Iran mu daal ci xale général Kulu Tidiane loolu kenn ko nangu te du ñu nangu sax benn Sénégalais di daal ci kaw benn xalif général ci Sénégal ndax loolu loolu loolu moom baaxul ci réew mi baaxul ci diggante Sénégalais yi baaxul ci cohésion sociale bi nga doowee te ñun duñ ko nangu duñ ko nangu mukk mukk mukk kon maa ngi nii Maroc waaye incha allah su ma ñëw Sénégal rek ñu def lu ci war dinañ wax Bougane nag bien sûr balay balay bala ñu def dara su fekkee ne def na lu ci war mu jeex bu ko defulee CNRA jël jël responsabilité rapidement mettre fin à incha allah jërëjëf Binta. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dafa am rek lu ñuy leeral loo xam ne dafa waral a leer ci bopp nit ñi gis nga ñi jóg di indi ay wax sama diggante ak Pape sëriñ mbay dara lañ ci mënul man kenn du ma wutal noonu kenn du ma wutal noonu man kenn du ma wutal man may wuutal sama bopp noon wala mu wuutal sama bopp soppi Pape Serigne Mbaye tudduma ko fenn tiit waxuma ko dara tiit defuma ko dara kon ñi nga xam ne dañoo bëgg a jël wax yi di ko dugal fu leen neex di yóbbu fu leen neex nañu xam ne duñ ci am ndam duñ ci am ndam man Pape Serigne mbay sama kilifa la duma ko xas duma ko wax lu ñaaw su ma ko ko waxee wax naa ko sama bopp su ma ko ko defee def naa ko sama bopp léegi nañ ma génneel fan laa tuddee turam jëme ci moom lu ñaaw nañ ko génne suñ ko génnee ñu wax ma ko wala ñu yónnee ma ko mais loolu amul nañu bàyyi yàq nañu bàyyi jaxase Pape Serigne Mbaye bu ma ko xasee xas naa sama bopp su ma ko bañee bañ naa sama bopp man li may dox tariqa yëpp laa yemale nag tariqa yëpp laa yemale yëpp laa yemale teewul nag Seydil Hadji Malick mooy sama kilifa mooy sama kilifa te man contribuer naa ca Maodo loo xam ne contribuer wu leen ko bay leen yàq bay leen yàq nañu xam ne kër gi këru defer la mais du këru jaar fële këru jaar fële këru jaar fële lool du kër gi Pape Serigne mbay sama kilifa la du ma ko waxee lu bon wax naa ko sama bopp su ma ko defee lu bon def naa ko sama bopp kon la ngeen waroon def ngeen maandu ci waxuma ko dara dara dara ku gis nag fu ma tudd turam wax ma ko Pape Serigne Mbaye suma kilifa la suma kilifa la suma kilifa la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa loolu laa doon leeral ci seen bopp mu mu leer ci seen bopp ngeen xam ko du ma nit na ko ragal de eh, non non non non non non non xalaatuma loolu sax xalaatuma ko ci àdduna waaw waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru def ngeen ma ko daaw jéeg def ma ko daaw def ma ko ren lu ëpp tuuru man ma benn yoon Pape Serigne mbay fu ma ko tuddee mooy xanaa jumaa ji foofu de tudd naa turam wax naa la ma war a wax jeex na waaye yéen nit lu tax ngeen mën a jël seen kàddu wër fu leen neex ngeen dem loolu lu muy jëriñ loolu yàq rek la loolu amul njëriñ amul njëriñ Pape Serigne bay mënu leen a fexe ba ma def ko noonu mënu fexe ba mu doon sama noon mënu leen fexe fexe fexe ba duma yilif ko kilifa kilifa kilifa gu nekk ci kër gi njaboot gu fi nekk ñépp moo leen yilif yéen ngeen di wër di wax lu ngeen di wax lu ngeen di wax kon nag ah lopp day tuuru de lopp day tuuru lopp day tuuru wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.